nuyu naa la. kontaan yow maa ngi lay fay ji. yëg-yëg nga am tey ci bis nga xam ne c'est la deuxième fois mu koy def. defoon na ko terrain gaal gi defaat ko une deuxième fois ma kontaan trop ñi amateurs yi wuyu si ni amateurs yi wuyu si mbër yi vraiment tey am nañ mbëru champion yu bëri yu fi daje kontaan na trop ci décoration bi. ñu gis say nawle arbitre yi nga xamante ne lamb dafa amoon fee sax lamb ji jeex ak match équipe nationale Sénégal bi teewul ñëw nañ fi ngir ànd ak yow bis bi sa diggante ak ñoom lan la. bon mel na ni ñoom la ñuy sargal parce que ci ñoom laa nekk ci ñoom laa bokk xëy na am na yu yu may def sax ñoo ma ciy jàppale ba mu mën a antu donc euh, buñ ma sargalee rek mel na ni ñoom euh, ñoom lañ sargal Sénégal day football mënoon nañ combat yi jeex ñu dem seetaani match bi mais ñoom ñoo kaw bàyyi ñëw teewe ko ma kontaan si ñoom trop. gis naa presse bi tamit kontaan naa ci yéen lool parce que yéen ñëpp a groupe oo ñëw gis naa ñu bëri ñu fi mobilisé wu pour gën a bësal euh, jëmal bés bi. pare bi nag woo na ma wax dëgg fa yàlla muy Badara Ndiaye nekk mag ci man gagné mairie Thiaré njal gi yàlla dogal euh, waajuram bu góor feebar bu hospitalisé. urgence la dem foofu moo tax mu ñàkkul teew mais mel na ni bu ma teewee rek moom teew na parce que sama frère la kontaan na ci yéen ñëpp waaw Boy Faye na ñàkk na léegi moo ko jëloon keroog tey ñàkk na demi final waaw. mel ni équipe nationale bu Sénégal bi mené na 2-1 looy wax ci loolu. ñu ñaan score bi yem foofu bu Sénégal mënul doole mu yem foofu vraiment la ñu yokkaat waaw ndoom li ñëpp si waat fii Sénégal incha allah kontaan na ci yéen ñëpp. tas yaakaar nga finaalu sa diggante ak T-Max wala X9 bari yëg-yëg nga am ci final bi ak compétition bi ni mu déroulé li nga ci wane. waaw xam dañuy sant yàlla di jillu si yonent bi di sant suñu ñaari waajur di ñaanal sam papa yàlla na yàlla na ko yàlla yërëm ñu ñun ñu finaalu suñu drapeau grand frère mbétte la si ñun ndax kii lu ne liggéey na ko si làmb waaw te borom baax la billaahi waaw sama adversaire moom waaw na ñëw ñu neexal ko moo daan ko rek moom ndaanaan la mais ndaanaan bu dajeeg ndaanaan bu dul ndaanaan dëgg ndaanaan da koy reer dañ koy nangal champion am nag bëre nañ am dalaay daan na ma mais ku ma dóor rek may aliyat bi. waaw. maa ngi sant waa làmb yëpp di sant Malick suñu suñu père suñu lépp Malick moom suñu ci boolo quoi di ko ñaanal yàlla li mu bëgg si si booy rek la defal ko ko quoi. waaw tas yaakaar nag quoi moom champion la quoi ndax bu dem ba final xam nga ni champion la mais moom maa moom mosu ñoo laale quoi mais xam naa fàtte ko Gambie. ko daanoon am na laay te ku ko dóor di ko abal waaw mais làmb la rek damay làmbaliwaat rek garaawul nga bàyyi ma jël ko rek ndax moom mooy loolu waaw. ndax kan a jël Malick drapeau maa ko war a jël. maa ko war a jël di sant nag sama waa koñ xama di sant sama waa le sama waa gaale xama sama waa koñ bàyyi ma kenn ndax ñoom dañuy sonn ci man waa di sant Idi bu baax Idi ndax chaque jour moom damay sonn ci affaire yi naa man demal demal bul bàyyi. bilaay walaay taalaay nante dañ siy nekk nag ma daanu combi premier tour dur saanee ma daan ma ñëw dawal si fii te bu ma jógee fii oto ndaw laay jël dem si vingt cinq naagi arbitre bi sifflé na mbokk yi final baa ngi noonu dox ci diggante tas yaakaar ak T-Max wala boog tas yaakaar ak X9 ndeysaan X9 nag marque tas yaakaar moo la féete ginnaaw X9 moom nga jàkkaar lool ñoom ñaar mës ñoo laale X9 daan ko tas yaakaar ne ku ma dóor di ma jat bi X9 moo éliminé Boy Faye tas yaakaar moo éliminé Gaskel Jammeh éliminé Grand Mbagnick ndeysaan xale yaa ngi noonu Boy Faye moo éliminé Ngoudaye ci compétition bi ay ndaanaan lañu ndaysaan moment bi may wax ak yow Sénégal dugal na troisième pion ndaysaan pour Ismaïla Sarr jërëjëf Sénégal kilifa diine yi kilifa aada yi kilifa cosaan yi ñaan leen kubo mooy suñu ndam mooy suñu sak ñu bàyyi yàqalante bi mooy ñu bàyyi yoolo bi booy tas yaakaar jëli na ko tas yaakaar jëli na ko X9 dindi ñu bàyyi yàqalante bi bàyyi yoolante bi bàyyi sabote bi bàyyi jiital équipe nationale bu Sénégal ba pare di ko fa kenn du noobul mbot mbot tas yaakaar mbot doxoo mu bañ ndaysaan tas yaakaar X9 X9 bañ X9 tas yaakaar X9 moo la féetee càmmoñ tas yaakaar moo la féetee tas am na lu mu bëgg ndaanaan la ci bëre xale la waaye bu bëree nga xam ni ndaysaan xale la moom tas yaakaar waaye am na xarañte bëre am na xemmem teef fu bëre na cofeel ci bëre moom tas yaakaar waaye X9 plaqué na day daanu daan na daan na ko x daan na tas yaakaar X9 jël na compétition bi X9 jël na compétition bi